attention. waaw waaw attention mooy Gandia Fama ah. xale bi ñu mooy Gandia Fama lépp xewee fii ci Mbour ah. waaw ëbbali bu joof yow mooy tuus nii benn instant. waaw waaw kooku mooy Gandia Fama. waaw ëbbali joof yow a ngi noonu. waaw nee naa ne lépp nag mu ngi ci xewee ci kër Mbour Tefesse TV voilà nu ne doomu Diof yo ten refu xeke na Tousa axa xaaga ref o bali Diof yo axa a jeg combat xay stade Iba Mar xay rele le 15 axa a sika mbay ala xa baxan foofi axa Babou Ndiaye kooku mooy Babou Ndiaye waaw waaw ram muy abonné Mbour Tefesse TV ah waaw waaw waaw kooku mooy Obeuli bu Diofior doomu ndeyu Doudou Sané kooku mooy doomu ndeyu Tambal Daaro di doomu ndeyu Mame Fadé bu Diofior a ah. waaw xugaame Obeuli xeeke a numtooxa cosaan na wa Obeuli a numtooxa cosaan na a saaca a cosaan na a fitan na maak wa mbiteeguna axa a nuun e njom ka yoona fo cosaan jom jomkayo nafo cosaan te Ibou Ndiaye feke a laltida cosaan axa a pimbisa ke ngara axa ndoki pay ne gara axa oxo cha sac chosan aha la nu ne aussi beta na nuun pour ne abonné rek na Mbour Tefesse TV ndok cloche de notification ve pour nuun ne abonné a fuleer na waaw waaw desan ndeysaan waaw waaw Aïcha Hôtel Dior waaw waaw Obeuli doomu ndeyu Modou Ngom mécanicien oto bu mag bi oh waaw axa o layanga rek yiifo wara gema doom ndeyum fa ten den moƴno an ganja faama waaw a refu ɓiy peten de a jatiida o bali fo joof refu ganja faama